ma xam la bu baax man daal nit ku dul jëfe duma la déglu dafa am benn jigéen bu ñuy wax Zeyna bu Doucouré xam nga ko bu HLM marché am am na bitik bu rëy ma HLM tuddee ko sëñ Babacar xam nga lu mu def ci corona bi social laa lay wax ci corona bi ba ci bisu tey bi moo yoreel daare sëñ Babacar lekk soo demee lekk gaa ngi fa tuuru kenn ndax li muy togg a bëri loolu mooy Sénégal loolu it lañu bëgg kilifa di ko wax waaye fekk loo xam ni lu sariya tere la nga digle ko fekk lu charia digle nga tere ko nga ne wax déglu rek dégg lu waa ji déglu ko bu baax dama koy laaj dama dama la koy laajaat doomu njaalo mu ne dana mu ne du donn dana donn dana day donn waxul dëgg ku ko wax waxuloo dëgg laa wax. lakk risxul mooy tënk ba doomi njaalo du donn dama lay laaj lu tax kon baayam njaaloog ndeyam ñu dóor ko téeméer yar lu tax ñu jël ndaw sa dóor ko mu am jëkkër ñu rey ko ñàkk jàng la ñu ngi koy tuddi nut fa xabiisa ma laajaat ko benn laaj lu tax Euh, biiwu orjo boolewuñ ko ci bilan bi tontu ma biiwu orjo laa wax lu tax arbitre bi bindu ko ci bii légal yi dañ naan match ba di six quatre la woon sixième ba nag nekkoon orjo doomu njaalo orjo doo orjo la doomu njaalo dendale ko balu orgeau boo koy teg doomu njaalo biwu orgeau la maa la ko wax biwu orgeau mënoo xoolal équipe bi day dóor un bu légal ba ñëw dóor ko un muy orgeau lu ñuy wax un ak a ngeen mokkal football un zéro ngay wax lu tax un bii tudduñu ko orgeau la doomu njaalo biwu orgeau doomu njaalu biwu orjo la kenn mënu koo donn loo neex le nag moo fi ne gis ne waaw kii kilifa la war na lii la ñaar ci ne nag doom bi du donn baay bi du donn boo ñaari de su amoon doomu njaalu doom bi du la donn yow yow mi bàyyam doo ko donn yéen ñaar du ngeen donnante bàyyil xel loolu de kenn du donn sama rob daa ñun de meew bi ñu xam mooy bi ci nag yee xar yi bu ñu joxee ñu lekk de waaye ay génn ndox feeg indi nii <laughs> da xale rek looloo tudd karaamatul ayni du dara seen bët yi lañ lëndëmal du dara ku dem ca waaja ku dem ca waaja fekk fa gaay demal Saalum ñu nga ak maam yoo xam ne ci lalu gattax la ñuy tëdd seen ne kenn peron ko suuf la fel yee lay màtt billahi wël kitaabi soxla boo leen wax fii lañ koy fajee nga dem juróom ñaari dërëm lañ lay laaj ñii ñetti fifteen ngay joxe waaye kuy wër ne maa man mano ña nga toog ñu di leen wër waaye dara lañ manu bëgg a nit ñi rek ku dem ca waaja fekk fa gaaya dama toogo benn waaye ci gàmmu Cees ji paase mu fekk ma ma toog am ko ma booleeg moom ne ma boroomi jinni la ma ne ko dangaa yor jinni mu ne ma loolu lañu wax de ma ne ko non dama lay laaj rek boo yoree jinni ñu waxtaan ma man yoruma jinni parce que man jinni pour man c'est c'est euh, xaleel la du dara yàlla yónniwul jinni nit la yónni yenent yi jis gis nga ci jinni yéen gis ngeen dégg ngeen ci jinne yonti yàlla Suleymaan daan trotti jinne yi di leen dóor karawaas ñuy tàkk di dagg di leen xuusloo ci géej gi ñu indi jamaa di ko jox wa is saraf naa ilayka nafaran minal jinni yonent bi alayhi salaatu yàlla yónni ko ci jinne yi ñii di ay taalibe am nañ jàkk am nañ jumaa ma ne ko ne dama lay laaj ndax danga am jinne mu ne ma ah gaayee ko wax na ma ne kon yoroo ko mu ne ah, loolu gaay wax daal ma ne ko lu jinne di xeeñ mu ne ma xaw ma ma ne ko xam nga garabu neew neew bi ñuy lekk mu ne waaw ma ne ko li muy xeeñ la jinne di xeeñ léegi li nga dégg ko ne dama am taalibi jinni moo ma yónni taalibi dana yónni sëriñam ma defoon sëriñe yónni taalibi ay masque la ñuy jënd Mahfouz ma wax la ko te ay masque denc masque yu garaaw nag la su ma la waree seet si man li ti léegi paj mi réseau la réseau la jigéen ñi dañ cee bokk xale yu góor yi bokk ci ku ne dangay ngay uti client indi man maa ne ci réseau bi yor naa ay masque am na jaan yoo xam dañ leen di may chaîne xam nga loolu maa footi fii lii fi ne dara newu fi dañ leen di may chaîne am na bar yu ñuy may chaîne am na mbëtt yu ñuy may chaîne temps boo ko jox rek la su waa ji bëggee dugg danga koy may seen bu toogee tudd mu naan ñaarararararar ci biir naan ko moytu jinne yaa ngi bëgg a <laughs> maa la ko <clears throat> moytul jinne yaa ngi bëgg a ñëw fekk dara nga ne ko bu guddee nga ñëw ki war a faj sa soxla danga ko fekk ñu waxtaan man ak yow Mahfou ma jël sama waa ji solal ko masque sol yére yu ñuul sol masque yu ñàng ma ne ko nag sa baat lu mu xumbee ko ma la duggal ci néeg bi bul tiit nag ndax moo war a faj sa soxla bul tiit ngeen tëll ci biir mu yuuxu wut si la ñàngal noonu nga bëgg daw mu ne la bul daw bul daw xanaa du yow la Mahfouz ñu ne waa kii fu mu xamee sama tur su yu bu nax yaag fen ya jeexee ba waaj dem maa yow ñu toog waa gars ñu ne kii loo ma ne 4 millions laa ko laaj jox na ma 3 de ñu sédd waa réseau bi te bu waa ji ñëw di fay si 1 million réseau bi am na commerçant yu ci bokk kenn ku ne da ngay ñëw toog. yow dix millions kii cinq millions kii trente millions su waa ji ñëwee toog ñu soo tut war a dem liggéey man waa ji daa waa ji ay ce que déggul li ñuy wax sax sa waaye moom ngay seet man waaw man de moom laay seet un million laa ko doon yow noos nga man trente millions laa indi kii ne man vingt millions laa indi kii ne man gis laa ko defee mu gën a dëgëral sama ngëm or que ay fen la gëm leen yàlla ku jaaxle jullit ñaari rakkaa ñaan moom xamul lu jinnee xeeñ gis nga jinne fii lay doxee fii fii lu doxee ndëggu di fii la am nii koo dendal soxna si muy xeeñ neew jógal jinnee de loolu rek moo fi ne dañuy nax nit ñi rek moo tax ay soppi génnee béjjën ak soppi ay meew karaamatul ay nii dafa garaaw man su ma neexee yow ma bind sa tur nii ci suma baaraam rek effacé ko def nii sa tur ne fang man su ma neexee te danaa la ko wax lu dara gëmuma ko moo tax jëla sondel jëlal sondeel fii la ko gars yi def dagg sondeel dugal ko seen biir wey nga xam ne doo ko xam su ñëwee ñëwatul nga ne Mahfouz mu ne nii fekk sondeel bii bind de sa yaay nga ne diw moo su ma paree ma ne saafara laa ci sunguf laa ci def sunguf si këriñ bu ñu dëbb la sot defal fii këriñ def ni sooy bàyyi rek Mahfouz génn sa tur yaay génn yii rek la karaamat du dara ay naxe la rek ak togg ci kaw jaww ji du dara teg nii njaq nii muy bax du daara ma ne la bu baaxee mën naa bu bu tàngee bu tàkkee mën naa faj sa soxla waaye bu saxaaree mënu ko ñu toog ba mu yàgg mun ne jëppet du dara am na benn affaire buñ daan jaay di ko toccami bu jëkk nu mu tuddoon non gis nga boo ko jëlee dañ daan jël loolu boole ko doom bi ñuy jaayee pharmacie day xon nga dëbb ko ba mu nooy soo ci sottee produit bi boo ci sottee sunguf bi ci pét lay tàkk yooyu la gaa yi nekkee bitim réew kàccan ma ci nag kàccan ma ci maa ko tere ñu bari ne leen ribaa la sëñ bi man yàlla yor suma mbir ma radi rek galaas rek ndox rek sàcc yi séquma ak ñoom dara dañ leen di nax lànk leen dañ leen di nax yooyu da koy teel a jàng garde ko ndax ñu mel nii mais boo ko jàngoon gis nga soxna ni muy tiit moom naan be béjjéen beeg day génnee ndox am nga ni kii bu yoroon dara ñu nax ko léegi waa ji mën na koo takk sax ci béjjéenam yooyu ci am yooyu du dara ay tappale la rek hmm. Oustaz euh, man benn question la ci weeru koor lu ci mel ni suukaru koor gis nañ ni léegi dafa commencé yëngal yenn sëy yi ndax dañu kii gis nga yor ñaari soxna kii yàlla may ko am-am kii am-amam demeewul noonu suukaru koor yi naka lay demee ndax ñi ay kër la ñuy def ay woto leneen lu ne la def ci suukaru koor suukaru koor lu ci yàlla wax. yàlla woor la wax. waaw kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla nee na koor maa maa ko farataal ci yéen waaye nag du yéen njëkk woor am na ñu leen jiitu woon woor te nee na koor ku koy def ko ragal yàlla nga la preuve seetal sëñ bi yow nga wéet ci sa congélateur a ngeeg lu sedd guy pom jaa nga ja banaana jàng ca ginaar gi nga desala nga ca te ñemewoo koo lekk te kenn newu fa ku la ko tee lekk suñu borom ku dul yàlla boo ko jéemee waaru su ko nit defoon tey da nga gis ko ba suñ ñu naan ko sëñ bi koor gi tàng na de ah day nitu dara xamul dara tuusu la xamul da ngay ndékki ba suur ñëw naan ko ah sëñ bi de loo digle ñu def ko man de sama biir bi daan norte maa góorgóorloo rek ti ka daa ndékki ba suur mais yàlla rek ko gis nga yii ñu ci yokk sëñ bi ay suukaru koor fitna la fitna la nañu def li ñu yàlla sant ñun ci sunu bopp bu ñu amee luñ bëgg a defanti suñu biir ñu def ko xam nga nag de euh, nga seeti sa goro sa yaay jëkkër yóbbul ko suukar ci koor bi rafet na am déet sa goro bu góor dem seeti euh, gorom bu jigéen yóbbul ko suukaru koor rafet na mais buñ koo warlu nag warunu bokkul ci koor gi bàyyi ko xel bokkul ci koor gi dafa bokk rek ci teraanga yi teraanga la rek nga mën ko defoo def ko mënoo ko bàyyi ko bul obligé sa jabar yi nga bu la obligé ne ko damaa deful danga am suukar mu ne ngeen ko yóbbul amuma suukar defuma suukar soo ko amee yóbbul jeex na bokkul ci koor